là-bas et après faire une marche vers la préfecture. Dès que j'en étais informé, je les ai placés devant le responsable en faisant comprendre qu'il était inconcevable qu'une marche puisse être organisée sans que les formalités de déclaration préalable aient été faites. Et je crois qu'ils ont su garder raison parce que c'est pourquoi d'ailleurs vous avez vu le dispositif sécuritaire qui a été mis en place. Mm-hmm. Parce que nous sommes dans un pays de droit. S'ils des récriminations, ils sont indispensables, à savoir la déclaration préalable. Euh, heureusement qu'ils ont été très raisonnables. Lorsque j'ai invité par téléphone le président de la de ainsi que le responsable du marché central, ils sont quand même acceptés de se conformer aux, aux droits. Mmh. Mmh. sont contre les, la foire qui s'organise avant les fêtes, avant les de Corité ou Tabaski. Euh, vous savez, l'organisation d'une foire est de la compétence des autorités locales. Le préfet n'est pas directement impliqué. Dans cette affaire, je ne suis pas partie mais en tant que premier responsable de l'ordre public, il était de mon devoir donc d'intervenir pour essayer de rapprocher les positions. C'est ce que j'ai eu à faire. Parce qu'en fait, euh, ça fait bientôt une semaine qu'une foire est organisée au niveau la promenade des Tiessois, autorisée ville de Thiès, la mairie de Thiès. Bon, maintenant, il y a eu beaucoup de euh, beaucoup qui a coulé sous les ponts, comme on dit. L'important, c'est que vous puissiez comprendre que en tant qu'autorité administrative, je n'étais pas directement impliqué aussi bien dans l'instruction de la demande que dans l'autorisation à parler. Maintenant, le problème, c'est que les commerçants jugent que à la veille de fêtes religieuses, euh, l'organisation d'une foire porte atteinte un peu Et dès que j'en étais informé, depuis d'ailleurs le lundi, je les avais reçus le lundi, j'avais demandé au de la ville de les recevoir. Je crois qu'il les a reçus avant-hier et hier. Et aujourd'hui, il s'agit tout simplement de, de, d'arrondir les, angles pour trouver une solution définitive à ce problème-là. que vous avez trouvé euh, je viens de recevoir les, représentants de L'organisation d'une foire et soumise à des dispositions euh, légales qui sont là. C'est la prérogative d'une collectivité locale, d'une mairie, d'autoriser. De, de, de, Maintenant, les commerçants sont des partenaires des municipalités. Et c'est d'ailleurs à la veille de la Corité qu'il y a eu quelques difficultés, où le principe de laisser une période entre la fête et le début des fois a été retenu. C'est un principe qui a été retenu de concert entre les commerçants et, les municipalités avec l'accompagnement de l'administration. Maintenant, cette période, hein, je vous l'ai dit, il était d'avis que cette période-là dure 15 jours. C'est après que les commerçants sont revenus pour dire qu'ils ne sont pas d'accord pour cette période de 15 jours. Bon, ça, c'est leur droit de poser leurs conditions. En tout état de cause, c'est que euh, une rencontre s'est tenue avec la mairie de, ville. Le maire, je crois, les a reçus hier ou avant-hier. Malheureusement, il est envoyé aujourd'hui. Ils avaient déjà anticipé pour dire qu'aujourd'hui ils allaient donc baisser rideau, faire un sitting, faire une marche. Et comme je vous ai dit, ils n'étaient pas dans leur droit de faire un sitting ou une marche. Baisser des rideaux, ça peut se comprendre, mais faire un sitting ou une marche sans autorisation préalable, sans déclaration préalable, c'est pas possible. Et comme je vous l'ai dit, quand je les ai retenus, euh, quand je les ai reçus, après avoir échangé effectivement avec l'organisateur la fois, on a pu trouver une Euh, le délai de la fin de la foire. Je crois que l'organisateur lui-même a accepté ça sur demande express du maire de la ville. Mmh. Le reste, c'est qu'ils ont posé effectivement la question des foires organisées à la veille des fêtes de Corité et de Tabaski. Cette question a été posée. J'ai demandé au président de de déposer la lettre. Maintenant, elle sera instruite parce que déjà il y avait un consensus dans ce sens-là tous les, toutes les conséquences que demain de, de telles euh, incompréhensions ne ngeen àndandoowul woon nag ñun dégg suñuy ndigal li am duñ ko am muy Cees yëpp laaw léegi bin demee gis préfet tëj gii moo nu may li am waxtaan wa yàggul matul 10 minutes liñ bëgg lépp mu defal nu ko lim nu defal mooy foire bi day arrêté avant le sept préfet nee nañu bu soobee yàlla dina préfet le dina dina dina arrêté le 3 à 21 dina arrêté. li ci dolliku li ci dolliku mooy li nu ëppal njëriñ waaw d'accord d'accord d'accord d'accord merci beaucoup li li li li li nu amoon importance mooy li ci tegu mooy danoo waxoon foire bëggatun mu am fi période korité ak tabaski waaw bi ñu waxee ne début di ramadan balaa demee di tabaski lanu bëgg loola sax Badou Mbaye mii moo ma ko wax ca chambre de commerce ñun ñu fa woon ñëpp ñu ne li xale bi wax d'accord nañ ci ndax mag day am xel mu rafet gone da koy am ma bind leetar euh, monsieur le maire def amplification préfet ñoom ñaar ñu jot ci leetar bi tey jii bi nu toogee préfet laaj ma lu ngeen bëgg ma ne ko lan la waxoon ca leetar ba te bindoon ko ca mu ne ma bu soobee yàlla balaa jant so naa bind arrêté boo xam ne début du ramadan balaa demi di tabaski kenn dootu faar ci dëkk bi. asalaamaaleykum wa rahmatullah loolu rek laa soxla woon wax leen ngeen dégg ko da ngeen ubbi te toog jaay te xam ne si li feeg noo ngi àndaloo nekk benn lu ñu bëgg dañ koy am tey jii nag ak ëllëg gënu jëm hmm. jowtig moom li ci am yéen yéen a koy wax lu ngeen ci bëgg taxawal taxawal taxawal ban hmm. hmm. jafe-jafe la leen mën a jural yéen commerçant yi jafe-jafe yu nu commerce foire bi mën a jural jafe-jafe yum ñuy jural mooy période koré ak tabaski dama ne màkk aj lañ commerçant yay am la ñuy am boo demee màggalu Touba màggal la waa Touba di am la ñuy am ñun tim na am dara ndara kadu ndara kadu ko ndara kadu diggante koor ak kori ak tabaski ci la nu am ci la ñuy fortaat li ñuy fortaat ñii dem ci banque yi ñii dem seeni i mutuelle ñii leb seen i fourniteur nga ko kon ñun période yooyu lañ bañ ko ci foire parce que Dakar dañ fay foire dañuy foire Thiès dañuy foire feneen mais période bi nga xam ne ci la ñuy foraatoo lañ bañ ko ci foire ndax nun noo nekk ci dëkk bi dafay juuti yi dafay patante yi buy taw suñu kaw buy naaj suñu kaw kon du nangooti jamono yu ñuy fortaatu kenn di ñëw ci dëkk bi di boob li fi nekk di ko yóbbu di ñu bàyyil xotti dëkk duñ ko def tey duñ ko def mosal dañ na ñëpp bañ nañ waxal waxal lay am Nous contestons l'existence de de la ville, accordée à qui vient de Dakar. Et nous avons refusé que madame Maïmouna Samb euh, euh, habitant de Thiès ville a organisé son foire aux, aux périodes de la Korité et nous avons refusé que ce foire soit, soit, soit une existence totale de ce pays. Et pour cela, le maire a accordé un ressortissant de Dakar pour accorder la foire à une autre personne qui vient de Dakar. Ça, nous refusons. C'est pour cela que nous sommes rassemblés ici aujourd'hui. Nous sommes à notre huitième jour de manifestation. Nous avons arrêté les taxes municipales et impôts et PPA depuis le 21. Et nous sommes aussi le, le 28, le 29. Aujourd'hui, le préfet nous a donné rendez-vous vendredi. Et pour cela, le mercredi matin, mercredi soir, les autorités de la ville, de commune, a envahi le marché avec la force de l'ordre pour exiger de payer les, de payer les patentes, les, les, taxes municipales. Et nous avons refusé de payer. Et pour cela, nous avons fait un communiqué à la presse euh, de, de savoir toute la ville de Thiès, en savoir tous les marchés de Thiès, que les taxes municipales sont arrêtées depuis le 21. Et nous comptons manifester demain, aujourd'hui, euh, vendredi contre la foire pour que le préfet prend acte, le, le, le foire prend fin et que nous puissions retourner à nos lieux de travail. Aujourd'hui, vous avez décidé de baisser les rideaux des cadres. Est-ce que la grève a été suivie Effectivement. vous pouvez le constater toi-même. Toute les, la marché a été fermée. Toutes les boutiques sont fermées. Général de Gaulle est fermé. Ilo A, Ilo B, Ilo C, Nyanya Sao, Grandies, Moussante aussi, avec la solidarité, pour la partenariat que nous avons avec euh, le marché de Moussandek, ils ont fermé leur cantine pour qu'ils viennent nous soutenir pour que le foire sera arrêté par le préfet. Quelle est la prochaine étape Nous combattons, nous combattons jusqu'au bout. Nous combattons pas levé le mot pour l'instant, parce que le préfet nous a donné rendez-vous à 11 et nous attendons ici en fermant nos cantines et attendre que les, nos leaders, nos leaders reviennent de la rencontre avec le préfet pour savoir que le préfet a décidé de suspendre, d'arrêter la ou, de continuer la foire. Et pour cela, nous menons notre plan B. Notre plan B, c'est de nous combattons, jusqu'à la sera arrêtée. Sans la foire sera arrêtée, nous combattons chaque jour pour que, pour que l'injustice sera faite parce que le commune nord, M. Lamine Diallo et ses membre n'ont aucun droit d'utiliser la force envers nous. Parce que c'est nous qui payons nos taxes, c'est nous qui payons nos, le salaire même. Donc ils doivent nous respecter parce que nous sommes des citoyens de cette ville et nous contribuons de la ville et de la commune. góor yi commerçant yi. est-ce que ñàkk fay taxe ak que ñun jàmm rek lañ bëgg xam nga li ñu naqari mooy foire bi. tabaski korité ñu jënd sa bagage ñëw teg. di jaay tabaski ñoom ñu ubbi foire parce que ñoom ñu ubbi foire te di nag bëgg naa mu xam lii xam ne ñun jigéeni Kees nag ñu ngi woon ci ginnaaw waaye nag ñu ngi bëgg a dellu ci ginnaaw ndax ndax mairie seen poste lañ fi nekkal am na loo xam ne lii dafa jaaduwul am na loo xam ne lii dafa jaaduwul ñun nag ñu ngi ci ginnaaw ñi la ñu nekk ñun mboolem kuy jigéen ñu ngi ci ginnaaw góor ñi idi nag na dégg na ko dégg Idi la maa bëgg mu dégg lii xam war naa ñëw kees ba ak commerçant yi kees yi sonn nañu jigéen ñi sonn nañu góor ñi sonn nañu. ñu ngi fay tuuti. te. day leer lu mel ni laa wax.